Thank you. salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum mbéy ko internet yi nga xamanteni ñu ngi sétane fi ci El Vision Média ñuy xëcc cool mi di ci wekk ay pek ma ànd ak sama doom yaay Tike law fi ci seen émission Roubé ci El Vision Média ça dépend ci heure bi ñi sétane muy goudi wala muy gone wala muy bëccëg ma ngi leen di nuyu bu baaxa baax di leen siyaar di leen wax c'est parti avec la belle musique fii ci El Vision media waaye nag ak Roubé ak sama doom yaay Tike Lawe. tubaarikàlla macha allah nee la sa su nek rek. mais Tike bala nga nuyoo taxawal parce que ñun dañoo tambali tay émission rek appel yi tàmbali tey

ah oh sama xol sedd na reyaana barki sëñ Bamba reyaana sama xol sedd na ndeysaan dégg nga lii moom reyaana la tudd wala reyaana nee na tike reyaana nga tudd wala reyaana kon nag reyaana réew mi yëngu pour man reyaana la sax ba ma jàpp la xarit <laughs> mais mais tike tike tike nee na daf laa bëgg a jàpp xarit pour man Rihanna la tudd ba ma bëgg koo jàpp xarit. mais mais fi nga nekk réseau bi day daw soo mënee woote waat ndax déggante bi gën a neex. waaw fi nga nekk réseau bi day daw acca ticket yaa ngi doon nuyoo waaw. ayca rek nee la su baaxee rek ñu daal di dem réew mi daal di neex nag la ma wax rek sëñ Sénégal daal di jëm kanam. waaw nee naa la foo xëtee. ne ma lay daggaat. dagg ma uyul lii daf may neex ci appel yi tubaarikàlla. nee ko salaamaaleykum. salaamaaleykum. ba pare appel a duggaat kaw. dégg nga li xalaat kon bi mu neex na Rayane yow daa mel ni daa mel ni crédit crédit crédit taalibe nga yor de. mais mais Rayane na sànq ki ki ki la woote de Rayane am na doole de. ah. waaw. maa ngi lay dégg aw maa ngi lay dégg man ngay wër. laay laay la la aatu feeñ na aatu ma réerum bi jëmbeelu nax nee naa pàccax sa kanam. Ndeysaan ay waay sama xarit ndax réseau bi naa nooyu seen côté waay. ay waay li réseau sàcc la li est-ce que du cat. la léegi xam nga lu ma bëgg reyaana seen koñ bu dee am na garab garab garabu niimaa yooyu. non bu ko bu ko génneel sarax. non damaa bëggoon mu yéeg ci kaw garab. non non bu ko génneel sarax bu ko génneel. parce que sa réseau bi mooy mooy gajamboore daal waaw. non non mbëggeel gi ma bëgg. looloo for moo diis. waaw kon xam naa loolu la. moo yóbbu réseau bi. mais kontaan nañ bu baakha baax euh ba batay dama la duma la baye wa dama la baye nga nuyo ay ta sank rek kon lima wax rek. nee la man la borom piko la du alias dom piko pecos. andi mais ci xaw ne dama lay dagg ah. yow dagga ma ba mu neex. dama lay dagg doon dee ma dagg rek yow dema ma dagg. appel a dugg. non yow dema ma wa rek nepp allo salam alaykum allo wa allo koku koku Boubacar Fofana depuis Maroc. mais ñu ngi lay kontaane di la siar Boubacar. doom ndeysaan ah ñu ngi leen moom ca kaw ca kanam quoi oh, ndeysaan déggal oh, déggal loolu wax na lu neex wax na lu neex appel allo allo Ouzin Gueye wuyul fii mm-hmm. waaw allo ndeysaan maa ngi lay dégg waaw waaye ñoo la gën a bég Boubacar Fofana sama xarit bi Mm-hmm. ma nekk ñu leen a ñaan mu nekk télé bu mag a amin amin amin amin ndaw lu rëy macha allah ay ko fekkee. li ngeen def mën ngeen ko. ndeysaan li ngeen def mën ngeen ko ko. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. waaw waaw yéen jàppale rek. waa ana waa groupe waa ana waa groupe Bamba Osé. waa loolu déggal loolu Boubacar Fafana sama xarit bi. wane amul tànk gannaaw waaw tike lawbe sama xarit bi tike wuyul. ne ko bëgg naa ci yow. tubaari kàlla macha allah maa gën a kontaan ci yow. am amiin ñu bokk ko waaye sëñ Fall bi kenn di yow à tout moment. waaw dégg nañ dégg nañ bàyyi nañ sëñ Fall moom mi am lépp. ndaysaan dégg nga xam nga ne kii dafa nekk nit comme boo bëggee ay ans. da lay entraîné nga am ay ans. nga ne soo bëggee pek mu entraîné nga am pek. kii boo bëggee kii. Boubacar mi waaye doo ko wax dëgg yàlla man tike daa bëgg ans. damaa bëgg ans Boubacar Boubacar aw ma dara dara dara maa ngi ne nderes na tëli bi ah di ko gérer damay ñëw Maroc nga defaral ma wala dama lay xaar fii Sénégal Boubacar maa ñëw Maroc rek ndaysaan ndaysaan ndaysaan yéen samay xarit saa su nekk damay wër mais kontaan nañu kontaan nañu baax a baax Boubacar yaa na la yàlla defal jàmm ndaysaan acca mu ngi noonu Boubacar la waaye ba tey am na keneen ku duggaat euh, salaamaaleykum salaamaaleykum allo waaw waaw sant yàlla bu baax a baax kooku. man la Ngone. ah Thium Ngone. Ngone maa ngi Bey Ndiogu Ndumbeeg Taw maa ngi laa kontaane. déggal loolu. kontaan sama sponsor officiel. dégg nga laay laay la laa. waaw xaaral mënul neexul loo ragal da lay gaañ. allo waaw. asalaamaaleykum. sant yàlla alhamdulilah maaleykum salaam. kooku nu waaw leen di ziar bi naka la. Ah, Tafa ah, Gawlo. Gawlo baa ngi noonu Gawlo Gawlo bi. waaw bilaay ñoo la gën a bëgg Moustapha. waaw di ko kontaan nag mais mais mais man ak Tické kan nga ci gën a bëgg. Oh. laay laay oh. la laa. <laughs> Ouza li ngeen la. waaw. ndeysaan li li li li ngeen li ngeen def ak neex moo tax. ndeysaan ah waaw. dama ni yéen Sénégal gépp leen bëgg. ndeysaan déggal juum juumul benn yoon. ndax ndax ma. dégg ko mu neex a tawrus. xam naa ku jël ngalam doo fet. waaw waaw. wóor ma ose kaay. ayoo mu neex a toog mu neex a tawrus. xam naa ku jël ngalam doo fet. dikkee gajaga kaay. wuyaay. mu neex a toog yow laay àndal. laaj ko I love you. ah. ndeysaan waaye man lay waay maa ngi nii ci gàllaw be. ndeysaan. ndeysaan. ah wax nga dëgg. Tafa Seck sama nijaay maa ngi koy soog a xàmme Tafa. <laughs> waaw. mais mais mais mais mais Tafa xam nga nu may def ak yow. may ma may ma may ma. dama lay invité sama émission bii di ñëw incha allah. laay laay la laa loolu laa bëggoon a wax. ñu jàkkaarloo fii man ak yow ak Tike Laobé ñu séq la fii. waaw lu tax lu tax yow ñu nekk sama xol nekk sa ah, xol. dañoo bëggante nag. tonton Tafa. wuyul. tubaarikàlla macha allah yow boo duggee war ngaa dugg boo duggul war ngaa dugg xam nga lu war a loolu tubarikala da nga ñoo nangoo doon sunu nijaay nak te li nga lu yàggul na deug te fi may waxe xam nga ko deug la barki dem tubarikala dama laa fekk fi nga xamante moy la poète hmm. nga ragne kuma lool ba mu gëna neex nak nga nangoo doon sama nijaay bu ma dugg ci groupe fekk la fi nga nermé lu ambiance wax ak man dikkee dama dama xam ne Sénégal yi yéne ko té mo tax dañ nga dikkee rek lér na lér na djumo sama nijaay la ah. dama leen di ñaanal ndeysaan sen ànd bobu yalla nako yalla saxal alamin Euh, mais programmeel nag programmeel émission bii ñëw incha dinaa woo Ngoné. Hmm. Euh, ñu convoqué la fii incha allah ñu jàkkaarloo yow mën a yow ak Tické fii ci émission Roubé. lu soobee yàlla. bu soobee yàlla ah, incha kontaan nañ bu baax a baax Tafa. yàlla na la yàlla defal jàmm. waa jaajëf jaajëf. jaajëf jaajëf ñu ngi koy jaajëfal mais mais Tické nan la ñu at. non wuyul jalo kii ku doon allo waaw kooku ku doon. waaw Gajaga la kii Samba Gajaga la bëgg naa ci yéen de. oh Samba Gajaga maa la kontaane. jërëjëf waay

yàlla yàlla def jàmm kontaan nañu maalaw gajaga maalaw birima ah. tabarkàlla am na keneen ku nekk ci ligne bi ah ma naan soxna si ñu ngi lay nuyu di tur ak sa sant ak fooy wootee oh, soxna mu sëriñ Babacar borom tëli karo leer na ba kër rek dara maan maas kumba caam bëgg nga ku baax ndeysaan mais soxna namm naa la de ana waa kër eh, Amet Cuba ñu ngay baax xol sedd na bel na wéni waxal. munoo bàyyi sama wax yi ngay jël. maa ngi dégg loolu waxul law be la xol sedd na bel na wéni. waaw. ndeysaan ndeysaan. émission ruube mel ni jàmm ndeysaan kontaan naa. damaa xew nag. mais ma. dama man ak Tické kan nga gën a bëgg. damaa xew. man ak Tické Lawbe kan nga gën a bëgg. ah. déggal lii. yow da mujjee dem. yow yow yow incha allah yow yaa fi wax lu kenn waxu yow yow yow da ngay mujjee dem yow da ngay mujjee quitté. verbe partir. verbe partir incha allah je pars. tu ah, ah, ok kon léegi da koy séddoo. laay <laughs> laay la laa lu waay mënu ne xam nga ko naroon cause gel verbe dem je dem tu dem il dem elle dem nu demanoo vous vous demanee <laughs> il dem elle dem mais soxna kontaan nañu bu baax a baax ñu ngi lay jaajëfal defal jàmm kenn du yow ci mim réew soxna à tout moment. mais mais mais mais mais Tické xam nga lu ma jaaxal. Mm. nan la ñu Sénégal bëgg nii. ah waaw ah Ousseyn. waaw leen da xamoon naa ko daw tagaat. waaw à tout moment. waaw li may wax dëgg la de. waaw chaque jour dama naan quel monde sommes-nous. waaw maa ngi soog a xam. wuyul ki ci ligne bi. kii kum doon allo. waxal ci kaw. ah man na kumba géej ak saafaal ah, géej ma njal benn géej. yow ku sa ñetti géej yi maam yi wax foo jaar xuus. maa la wax loo borom ndox maa ngoog. ndeysaan oh uyul lii. ndeysaan ndeysaan. déggal lii mais mais mais mais wuy ma su kay. wuy ma wooteel sama sama téléphone pour mu gën a leer. jeex na à tout ki ci ligne bi ba tey. am na kenn mais man oh man sama xol bi daa sedd nag. allo allo waaw sant yàlla alhamdulilah ku wax loolu. allo waaw ñu ngi lay dégg. waaw kooku ci kër ma ngi noonu surtout Dogo Waar bi. leer na. Eh, kontaan sëriñ ci <laughs> yéen maa ngi laa kontaane. bég nañ ci yow. mais ana ci loo Fatou ana ci loone ah Anta sama xarit bi fami yi xanaa ñi dañuy waaraate ay ay alaaji doog a waaray seen maam dañuy waaraate seen seen seen yaay bu la tiflee rek mu dal la dañuy waaraate ñun waaw waaw ñun dañuy waaraate dëgg ah, neexul dañuy bu la ñaanalee mu dal la sama yaay ji nee ko baa mu ngi may tifli baa mu ngi may tifli mbaa ñu ngi ñuy tifli eh, bi ngay xaaj kontaan naa baax a baax sama xarit bi allo waaw. Eh, eh, kontaan naa ci yéen bu baax a baax. jeex na eh, ñamax ñamax ñamax yi laa leen ñëw may léegi bu bas cuun ñamax ñamax yi ñun ñëpp àndandoo ñamax ñamax yi. waaw kay merci. jërëjëf jaajëf kontaan naa bu baax a baax. waaw Ouzin Gueye mën a bàyyi plateau bi. est-ce xam nga ne ba léegi nuyoo ko. yow da nga man nuyoo ko ma nuyoo ko ma nit ñi. wuyul dafa ko ma ah, sama ah, présenté wu ma du gaan jëlal mu gën a neex. si wax allo salaamaaleykum. allo soxna naa def.

J'ai dit, hmm. euh, moi et Osé, euh, quel est le plus meilleur de ce plateau roubaix Tu aimes qui Moi et Osé, tu aimes qui Moi, j'aime DJ Osé. Oh. Et eh, je vais te conseiller verbe partir, tu vas partir. Hein. <laughs> verbe d'aime hmm. <laughs> Va, va, va chez toi. mais mais mais mais la belle gabonaise eu Anta comme tu la mangé la kontaane. Eh, kii mm. mooy kii mooy présidente. waaw euh, groupe euh, BG maanaam xam nga man dama am beneen tur bu ñuy wax BG. BG waaw maanaam ah, Bamba Gueye. Ndaysaan moom mooy seen mooy seen yaay. Ndaysaan tubaarkàlla moo ma teewal ci diwaanu yëmbal. tubaarkàlla xam naa yaa bëri kii de. Euh, mën teraanga nag te di ko def. yaa bëri femme. moom laa la doon wax léegi ne la moom moo la war a jox. pose ak ongul moom mii eh, kooku kooku wax ko mu leer wax ko mu leer. Eh. waaw nee man maa responsabilisé pause yi ak kii pause ongle ak Sidi. ndeysaan dégg loolu waaye mënu neexul loo ragal da lay téye olof ba naan ko gaañ. waaye saa ma yaay wa yaay li ma gën a bëgg lant waaw te daf da ngay moo tax. bu leen jaawle lant yi togg soos nag lentille yi def ci bët la ma wax <laughs> dama ne. bu doon fii lu mu xaddama lay bàqal sa gunu gundu ku laay lay la laa sa gunu gundu laay lay la laa sa gunu gundu laay lay la laa sa gunu gundu ku tàccu leen nii waaye xoolal ku mu dawuli yaramam saw ya e waay samba ana ñi ma bëgg eh, maa ngi nii ana ñi ma bëgg eh, ñoo ngi ne ana ñi ma bëgg ñoo ngi ne parce que da ngaa soxal da ngaa soxal nag déglul fii déglul kan déggu ma buy ñibbi paas bi dama ko koy yónnee paasu ticket waa jaarale ko sama sama sama téléphone dégg nga voilà jaar na ko sama téléphone. sama xarit la wuy ma jarul wax ji di sama téléphone rek. ok ok ci kanam dégg nga. waaw waaw waaw yéen ci kanam waaw. ci kanam waaw Sénégal lu Ousseyn doon war a baax eh, ku sama sama sama gaayen nga ma Ousseyn déglu ma. mais xaalis bi nag kon doo ko lijjanti bi. non wàllu ambiance li mu yàngalee tànk yi moom bu yeboo ñu def ko président des des ambiances rek non dafa mën gis na ñi fi mu seen tànk ba ne ni ba ne yaakaar fayda mooy nan yóbbu yëre su ko ko rusuloon laa lu garaaw laa koy wax fii en direct moo daa mën kenn moom àtuma mais Ouzin Gueye waaw bàyyi ngeen dinaa nuyu waa Sénégal loolu force la suba ba tey ñu ngi def waxal rek balaa appel dugub appel yaa appel yaa ngi jëmbelu damay nuyoo tubaarkalla masha Allah damay soog a door rek. waaw macha allah nuyoo ma ba tey. dama naan salaamaaleykum waa Sénégal. Hmm. asalaamaaleykum waa adduna maa ngi ci biir nga xamante ne mooy El Vision Média. waaw waaw maa yëg nga ne El Vision Média ku ko suivre suivre dara. nooy leela laaw. leneen loo suivre day fulu sa bët. waaw El Vision Média rek nga mën a. si naan tubaab yi la togg lan moo ci mënta manqué lan nga mën a togg loo xam te saa booy ko ci def. du sel. maanaam. sel xorom. xorom. waaw euh, pataas nu ñu koy wax ci français. pataas pomme de terre. terre prom terre prom euh, Tamate. Mata. tiko loko tiko lokoti tiko Alors ah, français oh, c'est à vous de juger mhm. ce sénégalais la le verbe partir waaw man li ma jàng rek non avant ma lay conjuguer verbe partir lu mu nag lu lu ma méttee nii musuma ko gis. nga bi may jàng école. waaw ndeysaan nag xam nga loo jàng bariwul. Mhm. waaye jotoon naa dem ba classe d' examen. Mhm. def naa nag examen. Mhm. dañu doon def ay essai de classe essai de classe musuma am. musuma de classe. ñu def essai général ku amul essai de lay def essai ma jaaxal ma dem toog yàlla def na ñu doon nag li nga xam ne mooy 32 personnes. fi nga xamante ne mooy classe bi. léegi suñu euh, suñu maîtresse dafa amoon benn table boo xamante ni euh, bu ñu bu ñu defee examen pare da koy bind teg ko ndax suñu buntu kër ay école bi ñoo jàkkaarloo te marché bi kuy dem da ngay xool mm-hmm. léegi nag 32 élèves yooyu mais man maa ci amoon ñu bind 31 élèves te bi ma dëkk la école bi ne koñ bi ma dëkk bari fay noonu ku ñëw boo séenee toog dem liir boo liiree lii liiree liir te nag damaa dem ba ci côté table bi taxaw na nii toute la journée nangu maa dugg suñu kër damay dóor ndax ñemewul ma damaa bari histoire ni laa def ku liir ci ko ma yaa ma baax mooy mun Benda da Codé. doo dégg mu ko tijjee jamba ci fin boo geesoo gisoo sama tur da ngay man jëm bi ngay xool man. <laughs> nga ñàngal. ma ñàngal mais imagine ban élève nga mës a gis dictée am dictée dictée de classe. waaw ñëpp aj seen kër yi ñuy dictée dictée. waaw ñu wax ku nekk ñu bind boo ñëwee diw nga ne ñaata faute nga ne trois fautes may mun a quatre fautes. ñuy lim ba egg si man ci ka lawbe may nii di da nee damay compté waat xam naa li ma compté dafa ma ndax rëdd yi ñi may xoolal fa di ma xool muy 59 faute mais rus naa ko wax man man nee naa gisatuma fu nee naa gisatuma ko. est-ce que xam nga ne ma daaw ma jaaxal. benn élève boo ci nes 59 faute. oui ma hmm. ñun bi di ñëw ay yére yu lañ solo. waaye saa daa mel dafa rouge. waaw moo ma jaaxal. kon da bëgg damay damay nitti. ah daa mel li ngay nett lañ rouge de. mais 59 faute yi dëgg la. waaw 59 faute après yow ñaata mu nga am aw ma dara ci laa bàyyee. waa léegi euh, conjuguer man le verbe parler ñu dem. ndeysaan tubaarikàlla macha allah à tout moment nee naa loo bëgg dama koy doon ndax dama jël sama xol parler le rëy bi nag daal di koy ci laa lay euh, verbe parler waaw euh, je venais pour pour vous conjuguer verbe parler waaw euh, je parlerai oui quoi je parlerai waaw tu parleras oui il parlerait waaw nous nous parlerons waaw vous vous parlerez waaw il parlerait elle parlerait de biiru wala du noonu non man gis nga osé nag xaw ma lan la man dama ko bëgg léegi yow bu ma amee benn problème damaa bëgg nag man xam naa benn rek laa ciy juum. dañ maa kalaamee yow. non benn laa ciy juum. waaw dañ maa kalaamee yow eh, eh, kii nee na comme benn monsieur nekk fi bu la war a dóor mais nee na bascule bi nga la ne kii bu màggee jongo ba lay doon. waaw monsieur boobu juumul <laughs> xam nga ndeysaan dama yàgg bëgg talon amoon na tuba yi nga xam ne coster fii lay yem moom Moussa Baare ba élève dugg toog rek damaa mos a bëgg ak man xamoon naa ne nag yii naa ko def. waaw damay bàyyi ba élève damay bàyyi man nag fépp fépp ba mu suble ba muy ñetti yoon élève yi dugg bu élève yi duggee nag ma bàyyi nag ba élève yëpp toog Moussa bi toog dama ñëw dugg jóge suñu kër taay ko bëggoon nag mu naa ko toog di lundi au dimanche laa su ma ñëwee nag naaj ñoo jëm am fële su nawet bi am talon bi dama koy sol naan koop koop koop su ma ñëwee daal di fëgg xam ne musée bi geesu na nii élèves yëpp xool ma sëkkaat fini sëkk sa nga dañoo dem ba bën nga. waaw su ma ñëwee ba toog musée bi bën nga jekk ba jaar de aw musée bi seen waaw kii de bu màggee jongo lay doon Moussa boobu dama koy war nee ko maa ngi nii nag ci barikàlla masha Allah bu ma séenee si El Vision Médias rek na jàpp ne jongo ma jongo ma laa doon bu ko dara ree na ci ci kàlla bi tubaarkàlla masha Allah waaw ay sëgg sa morom sëgg après mu jeex eh, rek leen eh, rek moom ma lay ñamal rek moom dina Ibou Gueye nag demoon naa ba ne nii waaye ko arrêté laa delloo sama waaw delloo ah ëppaloo rek mais nag dañuy kontaane ba tey ñi nga xamante ni ñooy yi ñu ngi mais yow mais yow man sama sama sama moo nekk noonu moom nga jël non non Ose bu fi andi benn problème non boy sama bos la non Ose ne roube pas oh généraux Beppa. mais ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax di leen nuyu nday nday Ndumbe borom Maroc maa ngi laa kontaane bu baax a baax Aminta tamit sama doom la ma nga ca diwaan. mais Ousseyn samay géer nga sama xarit bi nga ca diwaanu Paris toog di gën maa ngi koo kontaane bu baax a baax waaye nag bubs kontaan naa ah. bu mag bi maa ngi laa kontaane baax a baax di leen wax nag mu nii rek émission euh, Roube mais damay dem ci commentaire yi ticket parce que xam nga commentaire yi ñoom tamit euh, ñoom ci lañ bokk fans yi tabarkaala mm-hmm. te ñu ngi woon fu doy waar. Eh, kikalat ngi woon ci kan kii kalaat Ousin. Ousin lu mu wax. Ousin nee lu neex. Eh, jëlal ki ci ligne bi ba lasiar, nga soog wax ci oh. ah Modou Mbaye ban mbay laa lay <laughs> may ne ne fara maa la tàggatul sax ndax mujj ngaa tàgg sa bopp. <laughs> kii mooy Modou Mbaye tubaar kala bi ma soloon robe bi. mu ne Jimbang. mu ne Jimbang suñu wenn noonu te taxaju si ceeb kii mooy Modou Mbaye ma ñëwoon robe bi tubaar kala daal ci def évage bi sama biir na hëng da takk ba génn Modou Mbaye yaa fi andi woon ginnaaw sa anniversaire ba juróom-ñetti fan deewuñu ma dugalee ci frigo bi kenn deful man mii maa def <laughs> Modou Mbaye ñu ngi lay ziar. maa ngi ziar bu baax euh, sama waa ji na ngeen def. waaw ñu ngi nii rek di la kontaanee. maa a ngi ci waaw te di la ko ñaanal yow moomu. ah di leen di leen di leen topp di leen suivre. waaw waaw. wax dëgg yàlla li ngeen def neex na. ndeysaan barke da ngeen di bégal nit ñi. waaw Ndike di sama jigéen di sama xarit borom. princesse borom jëmbang. ndeysaan borom jëmbeelu. waaw waaw. maa moom lépp. ça bi daa daa poñe àdduna de. non suñu la Modou Mbaye wax ju du loolu Modou Mbaye kañ nga ñuy maabool man ak moom. la subito bientôt. ah. itali naan bi naan ko subito. subito waaw. subito léegi léegi. léegi léegi. ah kon jeex na. bàyyi nga ne ko ma digg door mu yun ko ñam xotoon. yow dégg naa koo digg door bu yeba mu yendoo jooy. leer na à tout moment. dégg loolu. Modou Mbaye Modou <laughs> uh-huh. su may feete sama 30 ans. ma war a julli ma war a jàpp war a yàlla mu xeeb mu dolli. waaw ma toog di ma passé la di ma teg brillant Modou di ma solo robb. waaw kenn deful def. <laughs> Modou Mbaye loolu da koy rey. <laughs> Modou Mbaye sama waaju loolu rek la bëgg maa xam fi koy gaañ ma di ko laal ak fay neex ci moom à tout moment. <laughs> <laughs> mais nii lay demee nag mais noo gisee émission Roubé. ah macha allah émission Roubé moom tarkalla macha allah. ndeysaan. neex na ah. xam nga. da ngeen di bëggal xooli jàmm ñi. ndeysaan. ndeysaan. dëgg la dëgg la. dëgg la. xàppiloo nit ñi ambiance ambiance loo nit ñi. reetaan loo nit ñi. dëgg la ngeen amul seen fay. amiin ma di leen ñaanal yàlla na leen yàlla defal. amiin amiin amiin amiin ngeen toog ba ñu leen di dégg ci ci télé yu mag yi. ndeysaan di leen toog ba di leen dégg ci rajo yu mag yi. ndeysaan amiin barki Serigne Touba Mbacké bu dee xol bu rafet rek moo koy may. ndeysaan di ngeen ko am ndax xol dafa rafet barki Cheikhul Khadim. ndeysaan ndeysaan ay nit ñu baax ngeen ay góor ngeen ay jullit ngeen ay yaaram ngeen ay nit ñu mm-hmm, baax ngeen mm-hmm, mm-hmm. barki Serigne Touba maa ngi leen ñaanal ci barki Cheikhul Khadim yàlla yàlla teg loxo amiin amiin yàlla na yàlla teg loxo ci barke Serigne Touba. amiin amiin kontaan nañ bu baax a baax. bëgg nañ ci yow. Modou Mbaye kontaan nañ sunu xarit bi ndeysaan loolu la loolu la loolu la loolu la lawbe bi naan xool sedd nobel na wéni. waaw loolu dafa leer maa ko moom kon daal Modou Mbaye yow kon kenn deful yaa def. koñ deful man mi maa def. yow yow yaa def ah tout le mu ngi noonu Modou Mbaye lay wuyoo tabarkalla ah. sama waa ji tabarkalla macha allah dama ne waaw dégg naa mu indiloon euh, ginaar sa anniversaire bi. ginaar yi dund nga dugaleen frigo ba ba suuru anniversaire bi te ginaar yi deewul. bàyyi nga sama anniversaire le 11 la. Mhm. jour la ñuy woor tubaarkàlla te weeru koor wi sore nag sama anniversaire ndax mën na deux mois xamanum defam andi ginaar ma jël ginaar daal leen ragal si frigo bi rek teg leen nii waaw ginaar yi waaw ba sama jour anniversaire. waaw laa leen fekk ñoom ñëpp ñu toog ku ne dëmm di ma xaar. waaw kenn deewu ci maa leen rey. ginaar yi kon nag mbir mi kenn deful man mii maa def. mais yow lan nga def ci ginaar yi. waaw ginaar def ma ne xanaa teg leen foofu rek tubaari kàllaama sax tegal leen ñaari butéelu ndox dugal leen fruit si bi. mais est ce xam nga ne yow ces du la dab da nga koy judduwaale. waaw moom loolu dafa lee tubaari kàllaama macha allah ndax nee naa la xorom dama koy judduwaale ay ku moo génn fëla jëlal li jëlal li ay ay koy dama naan nii damay lëmbal damay lëmbal a a nii. mais est-ce que xam nga ne. est-ce xam ne man boo dee def yi damay jékki ne la mu ñuy seetaan. Euh, Zeyna Lo. loo ma si rek sa jëy. ah astaghfirullah ma maa ngi koy yóbbu sama sant sama sama. dama xër dama koo bëgg nag. non dama xër que moom da ngay ñëw. Euh, mu lay toggal yu baax. ndeysaan di la toggal ay ginaar. ba tey émission Roubé doon wax. di la defaral ay café yu amul suukar. faaw puudar bi di dugg. yow nag da ngaa mel ni ku nekk seen seen. sànq waaw parce que nag xam hmm. ma. la moo tax ma koy may dédicace faale woo. xam boobu ma dina ñàq gi. ranger kanam bi fi bakkan nga waroon a teg ma tegaat ko fa fi bouche bi war nekk ma rég-régal ko fa ndax da koo jar dég jéeg bu tokk ci mën a yekk ci booli ma hmm? koy séri borom kër gi macha allah bàyyi nga mënoon naa fee ñëw rek mu pi nga ay cëram hmm. jël ma boole samay loxo ni ko nii def ci ñetti suusu boobaa waaye dama ne salaamaaleykum ci kër gi ma augmenté ma aj ma ma tal ma ma tal ma mbatax mbatax ma yóbbu kaw dettali ma benn yoon tubaarikàlla borom café gi ci man borom ndox bu sedd bi ci koy ñaanal gudd fan ak wér ko borom këram mu dem ba doom bi koy mais xam nga kan laa ma ko kooku ku mu tike kan laa bëgg nga ñaanalal ma ko kooku ku mu sa ginda ko ragi sa ginda ragi sa ginda ragi sa ginda nga naan taas mbaca su ma nee def soxor ni laay def Ah, dañ leen a bëgg bëgg goo xam ne tabaarkàlla bëgg nañ lépp lu leen animé rek muy dugg ci seen i biir téléphone ngeen koy savouré waaye bu leen fàtte di commentaire ci suuf surtout loolu lu ngeen commentaire commentaire ngay dugg dee leen aimé ma <laughs> naa la yeneen yi lu gën a ah bu jinax bi la maye bu ko wax de bu ko ko wax non non non non du ma ko wax xam nga suñu émission dafa neex tubaarkàlla mooy émission gi réew mi yëngu dana neex xam nga lu ma bëgg fi mu ne mm-hmm. leen noonu mooy fan mm-hmm. dee leen aimé dee leen abonné dee leen commentaire lu ngeen commentaire doy wax leen lu leen neex ñoo ne ci caméra bi tey caméra bi tey man waa caméra tey gisuma leen man tey man xawma lan la waaye waa caméra soo tey man du ma wax ak ñoom ba tey du ma wax waaw du ma leen a mere maa ko noonu waaw léegi xam nga nu ñuy def maa pinge samay ma Pape Diouf daa woy mbëggeel ma may la ci man fan yi bëggante woo bëggante woo bii su ma la ko mayee nga bëgg ko ma xool wuyaay taa yi laa doon bëggante ma la yebale fii de xam nga fu ma la yóbbu fa ma yóbbu wuyu lii waaye yow koo bëgg yow waaye kan laa bëgg pour yow ay waa tike koo bëgg yow posé waaw waaw. ndeysaan. mais Dieynaba bu ndaw mu ngi fii toog di ñu seetaan ak Soukay Mbuub tubaarikàlla ñoom sax tey dañoo ñëw seetaan c'i émission tubaarikàlla kooku sama doom la Dieynaba boobu ngay wax tubaarikàlla ki bëgg yaayam yërëm ay rakkam kooku ku mu ba lañ koy wax surum la ba jolle macha allah waaw dangaa dugg ci mënu kumba géej ak saafaan ma njëlbeen mm. nee naa la kooku du ma doy ci moom mooy sama waaw moom it kañ la ñuy sponsorisé waaw moom daf ñuy sponsorisé ndax eh xale bu na nangoo liggéey mm. Mali lay dem ak mën a dem Mali dem Gambi mm-hmm. tubaarikàlla daal jël ni nga xam ne mooy cuubi andi ko nag mm. mën a taral yaayam tubaarikàlla macha allah mais tabaski gi dina dem kooku samay wax ci moom dooy mel ni kay dama naan daa delloo sama bopp te xam naa sama dën yow di ko ba ba ba bañ a fëgg lan ngay ah déet man dama feex dara looy dër ngay ba ba ba lan la bëgg gi ana kara yi gi waaye eh, déedéet waay Diouf Diouf lu borom du ko bi ndaw bi ndaw man kan El Hadj Lo yow kan nga bëgg yee waay e eh, Soukay kan nga bëgg e e Jatu kan nga bëgg mama kan nga bëgg waaye sama yaay Mbay Njaay sax dama koy laaj ku mu bëgg laajama Njóoba Gora ku mu bëgg man may bàyyi Sëriñ Saali Mbay Saal man di bëgg naa la waaw kala ma a ko koo dundee koo gën a bëgg. waaw waaw. aywa. c'est ça. boo dundee ko ba a waaw Serigne Bamba nag mën a way daa mën a way tubaarkàlla macha allah kenn Serigne bébé Bass Baye Mouhamed daa mën a way à day santé loolu laa xam ci moom mbokk Xaadim Diouf a hmm? ba sedd na laay laay la hmm. Demba Waar sama waa ji tubaarkàlla hmm. sama rakk ji sës si ma rëkk te benn yoon à tout moment moom Demba Waar mooy président cent pour cent par eh, kooku doomu jogob Diouf la tubaarkàlla mooy doomu jogob oh! doomu jogob mbay tubaarkàlla waaye doomu jogob mbuub ndeysaan à tout moment Demba bàyyi waaw waaye tubaarikalla yaay la sakal bàyyi oh. moom ki nga xamante ne Demba Waar mm. maa ngi koy ñaanal bat bi yàlla na wéer séeri ab sa yaay su koy mbuub Demba Waar e eh, osé nga ni loo wax ci Demba wuyaay ah, e eh, Demba kontaane naa la mais nag sunu temps jeex na man bu temps bi di jeex damay mer quoi hmm. temps bi da ngay mer damay mer man temps bi ni ni mer mer yaa waaye nag tàggatoo. je veux partir à Côte tàggool tàggool tàggool. mais j'ai envie de ngor su. waaw tàggool ba pare nga wëri ngor su. waaw tubaarikàlla macha kon li fi jaaroon lépp rek daal di def li nga xamante ne mooy émission Roubé. Mhm. Roubé nañu sànneeku nañu fëlaale nañu am na ambiance neex na ba tax na ma di leen wax ne fii lay xewee ci fi nga xamante mooy El Vision Média mhm. damaa bëgg na ñëpp di commentaire da leen aimé lu ngeen commentaire doyul aimé bi na neex mhm. abonné bi na vulgaire abonné bi boo leen koy abonné bu leen bës dem bës bi day ànd ak collège autocollant bu ne nii mhm. nga xamante ne dañuy xool ne ñi abonné na tubaarkàlla macha allah ma ci ànd ak ki nga xamante nag mooy mhm. ne ba ko bëgg dégg maa dégg tasukat ba dal si weñ ndaka lay mel ndaka sama digganteeg yow ndax danaan keleen waay keleen weñ wu dal si weñ ndaka lay mel keleen waay keleen weñ wu dal si weñ ndaka lay mel keleen danaan keleen waay keleen yaa ngi dongoon acca mu ngi noonu nag ngi woon ci seen émission Roube ak ngeen àndoon ci ak seen doomu nday Osé ak siste Tické Laobé tabarkalla nii lay demee saa su nekk ci seen biir kër Roube mm-hmm. ah tabarkalla yaa xam naa xol sedd na comme ni ko sama doomu nday di waxee xol sedd na benn wéli uh-huh. ata di leen jox rendez-vous nag ah mm-hmm. ci beneen yoon insha allahu rabbi ci beneen numéro yéen ñi nga xamante ni yéen a jaar ci ligne bi doon wootee mm-hmm. kon na kontaan nañ ci yéen ñëpp yàlla leen suñu borom yàlla defal jàmm di ba faaw fii la ñuy te xeex bu dul jeex la xeex bu du jeex xeexu xeexu gumba la xeexu gumba la xeexu gumba la law gi day bari law gi law gi ay ko fa jël laaw waaye tey fii lañuy jaar nii ci kaw est-ce que duñu eggalee Pape Diouf eh, génnaale ak moom waaw ba tey rek sentir naa ko ni lañu jaar ni lañu jaar wuyaay ay wañeeku fan nga jëm fan nga jëm